te ba ñu demee hôpital avant ñuy aussi si hôpital bi ñu rakas ñu dajeeg seen wëggu paap waaw moo ñu jëkk xam ne benn xale bu ndaw bi dafa mujjee ñàkk bekkenam après nag si lañ continué dawaat dem si hôpital bi ban demee hôpital si gàddu xale yi yóbbu leen si Kambaaw ban demee si Kambaaw kenn ki moom ñàkk na bekkenam waaye kenn ki moom mu ngi leen dund noonu si lañ jëlee beneen euh, xale bi yóbbu ko euh, hôpital bu mag bi ban demee hôpital mag di def euh, kii bi ñu bàyyi ko fa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 voilà Aïcha gis ngeen kook nga xamante moom mooy Babacar Mbaye moom moo jur ñaari doom yi moom moo jur Ndeye euh, Binta mbay ak euh, Fatou Diouf mbay ay ñaari doomam lañu yoo xamante ne ni ñoom ñoo ñàkk seen bakken bi dégg ni ñu expliqué fee ni mu demee seen maam bu jigéen nag la ñu nekkaloon ñoom ndax seen kër maam bu jigéen ak seen kër papa benn angle la. Hmm. léegi bu ñu xëyee seen maam la ñuy fanaan bu ñu xëyee ba ay bu ñu xëyee war a jàngi dañuy ñëw seen kër papa ndékki préparé dem jàngi bu ñu wàcc ne la ñuy añee. Hmm. léegi seen waa kër toog nañu ba ay 11h midi gisuñu leen seen waa kër papa comme xaleek moroom rek rakkam euh, kii cousine am yi ñëw di leen xool lan moo tax ñëwuñu ndax dañoo jànge te ñëwuñu kër ga ndekete boobu ñoom të bi ñu tëddee si guddi gi. Mm. jugaatuñu. ñu fekk leen ñoom ñëpp ñu tëdd après si la ñuy woote ñu yëkkati xale bu ndaw bi mooy Fatou Diouf Mbaye fekk moom gaañu na bi ñu ko yóbbu hôpital fekk gaañu na ñu yóbbu ku mag ki ak maam ji bi ñu leen yóbboo nag ku mag ki moom bi ñu ko téyee ba mu xaw a calmé wu après génnewaat nañ ko sax indi ko si kër gi ba ci guddi gi papa ji nee na mu commencé waat di wàccu di wàccu bay wàccu direct après si lañ koy boîte hôpital yaakaar naa après si la ñàkk bakkanam ñoom ñaar la ñu robandoor benn jour mu nekk lu metti lool lool loolu léegi nag naa leen comme ni ko déggee lan la autopsie bi wax lu ñu nooyi la lu xale yi nooyi la parce que xale dañu amoon asthme mm. tëdd nañoo seen maam daal xëy loolu arrivé leen ba seen maam sax am da doon da doon mooy mère bi noonu donc mu nekk loo xam ne lu doy waar lool loolu la Euh, moo xew fële nga xamante ne moom mooy Thiaroye sur Mer Aïcha Thiaroye sur doy na waar ñu masawu leen bu baax a baax papa ji ku ko xool muy wax xam ne am na lu ko metti wallaahi Racky déjà di masawu famille bi di leen jaale xale yi c'est vraiment triste de ay xale ndaw yu demee nii à fleur de l'âge vraiment mais euh, bon autopsie bi euh, ils pas précis en fait parce que il au moins wax ñu ban substance la ñuy nooyi pour ñu mën a comprendre parce que je comprends pas ban rapport la asma am ak wàccu bay wàccu deret donc c'est ce qui est un peu flou dans ma tête peut-être bon euh, parents yi dinañu gën a gëm gëstuwaat ci autopsie ba ñu wax leen ban genre substance la ñu nooyi ba mu indi li nga xamante ne moo xew. na waar Pape. ay xale moom à chaque fois su fekkee dañu ñàkk seen bakkan ko surtout ay jeunes ay adolescents euh, bon li ñuy def rek moom mooy di wu. kii bon et puis je sais pas moi xaw ma ndax nañu amul ay moyens pour affaire autopsie bi parce que autopsie bi wax loo xamante ne leerul moom bon ñoo xam précisément la moo leen est ce ñu defaat beneen du ñu def contre autopsie est ce moo xam moo xam dina weddi autopsie bu ñu njëkk a def wala wala loolu kii ñu ko. mais bu ñu leen suulee ba pare c'est fini c'est peine perdue à moins que ñu joxe autorisation pour ñu suulee. mais mais dañu leen suul ba pare. te ah, rob nañu ba pare ok doy mhm. na waar non non pas bi ñu leen robee après autopsie bi après autopsie bi parce que man insisté si autopsie bi ma demee mhm. si lañ ma wax ne ma autopsie bi nee lu ñu nooyi la mhm. ma ne ko tax defaat ngeen ñu ne ma déedéet comme lu ñu nooyi la te seen ñoo seen maam ñoo dëkkoon affaire bi am na lii am am na pare ñàkk nañu donc ñoom nekkaatuñu fa di topp waa defaat yeneen autopsie ba xam lan la ak lan la d'accord ñu jël seen ay doom rob papa ji loolu la wax Babacar Mbaye moomu moom moo jur ñoom ñaar kii Tina euh, euh, am na ay temps yi nga xam ne ay Aïcha euh, dañuy doon faral di dégg souvent nit tëdd na décédé ndax àndu cuuraay c'est-à-dire que nga boyal sa ànd boyut carrément gaz carbonique boobu mun na rey nit donc gis nañ ne ñu bari dañuy dañuy dañuy dee ci genre phénomène yu mel noonu xaw ma nag exactement nday laajte woon nga ndax bi ñuy tëdd dañu boyaloon ànd dugal ko wala dugaluñ ko parce que loolu aussi dafa nekk loo xam ne dafay rey nit très rapidement moo tax ñuy tere souvent koy tëdd ak ànd. tëdd ak ànd mu wóorul moom surtout bu fekkee da nga amee asthme mm. même doom bi kese nga koy nooy wóorul. c'est pas sûr waaw. merci ma maam ji damaa bëgg dugg si néeg bi mu ne ma néeg bi doom raxas nañ ko moom set dara amu fa. duggoo. maam ji nee na déggoo li ma la wax maam ji nee na ma raxas nañ ko moom set dara amu fa ma ne ko waa dama bëggoon dugg rek pour xool mu ne ma mu ngi ne dañ koo tëj mënoo faa tëj. xam nga tamit nag mënoo dem si kër jàmbur di di violer peut-être dañuy moom la wax loolu rek nga mën a jàpp donc daal mu nekk loo xamante ne lu métti loola waa Thiaroye euh, géej yëpp nag di ko ne lu métti loola ñuy massa waa famille tous les éléments yi que autopsie bi aussi comme ni ko rakk yi waxee yaatuwul li ñu wax rek loolu la ñu mën a jàpp ñu massawu leen bokk ak ñoom seen naqar mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal bàyyi da nga tàggatoo voilà mu ngi noonu leen masaw bu baax a baax euh, papa jooju moom Babacar mbay bu loolu weesoo Aïcha mhm. euh, keroog nag si mardi bi Sénégal yi ñu fanaanoo muy génnuk àdduna Mansour dien borom Icône magazine mi nga xamante mhm. ne génn na àdduna keroog ci mardi bi bu ñu xëyee nag si àllarba ji ñu def levée du corps bi fii si hôpital fan mhm. jébbal ko boromam rob ko fële nga xamante ne mooy yoof daal di koy saraxal fële si këram gi si àllarba bi ñu yemale yëpp nag comme moom ni mu ko bëggee moom Mansour Dieng borom Icône gannaaw feebar bu yàgg bu mu tëddoon ñu ngi koy jaale ay waa këram yëpp ah, Mouhamed ak Awa Cheikh ñoom ñëpp ñu leen koy jaale ndax nit la woon koo xamante ne nii képp ku nekk dans le milieu showbiz xam nga ko mm-hmm. maa ngi jot Issa Sall muy wax seede yi mu amoon si moom diggante bi mu jugee Italie ba ñëw nekk coof nekk ak ñoom ak Laye Bamba ba mu créé Icône magazine kon kooku lañ fi ñàkk ñu ngi koy massaw baax a baax di ko jaale képp koo xamante ne rek rek yaa ngi dans le milieu showbiz Aïcha. Mhm. merci Pétaw ba semaine prochaine incha allah. incha allah jaajëfal naa la euh, Kéna merci beaucoup. Mm. merci Aïcha xanaa aussi di euh, ñëw ci ndey lu mu fu mu jeexalee rek di jaali euh, tonton Mansour à toute sa famille moom sax xam naa ne feebar bi sonaloon na ko ndax dafa jëmoon mag mais yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana yéexee ñu fa ñun ñëpp di leen jaajëfal bu wax bu baax a baax di leen wax ne bonne euh, fête de la tabaski à le monde parce que mm-hmm. je pense que bu ñuy dajewaat day fekk nag tabaski ba pare donc di leen ñaanal ñu fekkee ko ay at baree baree bare sur ça Aïcha on se donne rendez-vous ba après tabaski merci Keina merci Ça a été en plaisir ah. plaisir ba toute la semaine euh, ñuy nuyu téléspectateurs yi ñu doon seetaan ñu gunge tout durant toute la semaine. et mm-hmm. voilà lo di bon week-end. bon week Racky merci beaucoup. waaw merci di présenter encore une fois suñu condoléances à la famille euh, di ko ñaanal suuf oyof ci kawam. Euh, di remercier rek téléspectateurs yi. comme mhm. ni ñu ko waxee rek ñu préparé takku jug dem tabaski. ñëwaat ci jàmm en forme et di souhaiter un joyeux anniversaire à un ami euh, Amadou Kane nekk marché Zing happy birthday enjoy it donc di leen jox ne rendez-vous après la tabaski. merci Racky merci à toute l'équipe de la matinale ñu fi jaar durant toute la semaine ñu ngi jaajëfal ku ci mel ni Kajoor euh, ku ci mel ni Charline Grégoire ak ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal merci à la régie Weuz Papa ak Mouhamed jaajëfal leen bu baax a baax à 10h vous aurez le flash d'information 11h vous aurez Sister Maria et sa team dans la mi-journée l'avant-première foofee itam dañuy wëyal li nga xamante ni moo di actualité bi waxtaanee ko ak seen ay gan quant à l'équipe matinale ñu ngi leen di souhaiter une très belle journée waaye très bonne fête à